mbokk yi sëriñ abdul aziz jaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar Afrique moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca ca quartier ba ñu duppee sëriñ Abdul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum siti góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan looti nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom a ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. ñu dem ci euh, Sala Bigué mi yëkkati woon ay kàddu ba mu jural ko foo ubbi ci Facebook YouTube ak euh, TikTok moo fa fees dell Modou lu Sala wax ñu dellu si waat. no du ma bett parce que nit ku ne ni nga mel noonu ngay doxee. mais dafa war a xam ni moom comme dafa bëgg a yor réew mi il faut mu xam li nga xam ni dafa bokk ci réew mi te yàqul réew mi loolu mu ànd ceeg waa réew mi foofu rek laay waxee. Hmm. xam nga làmb dafa bokk ci réew mi. tey ji xanaa bu nekkoon président du ne làmb dootul te promoteur biy tëgg làmb wut benn parrain tudde ko ko pour sargal ko kooku moom sargal la moom tey bu ñu ko tuddee làmb maanaam pour sargal ko ko bu nekkee président war bu dee ko kooku la mais ñun image bi ñuy soxla mooy hmm. ñun ni su ma toogee sama émission ni tey nag drapeau président Ousmane Sonko la woon vraiment ñëw na fa ànd xaw ma sax la mu jox promoteur mais geste bi mu def ak déplacement bi ak délégation bi ñun boobaa loolu la ñuy wax xale yi ànd ci ñu réer am na ci ñoo xam ne aussi dañu amul kilifa. Hmm. waaw man de samay doom téye naa leen man samay doom dama leen a téye man sama doom maa ko jur juruma. sànq nee naa la fi Pape Ousmane looy bëgg bëgg ko ndànk looy bañ bañ ko ndànk Ousmane sonk euh, yàlla def na ba ma dalee wax ci moom ak léegi position ba ma taxawoon rek laay taxawee sénégalais la xale la jàng na bëgg naa jot réew mi waaye il faut mu wut ko ci ak dal parce que loo wutul ci ak dal neneen noo ko amee rek fitna lay doon xam nga wutu ak dal mooy lan mooy sortie yi muy def man Ousmane Sonko su ma ko doon digal li ma koy digal dëgg bu doon mën a hmm. communication bi na ko defaraat lu la ci communication bi dafa metti ah communication dafa metti dafay dafay wone benn accent grillé boo xam ni lii mooy am wala ma def lii ndax du liñ ko tega justifié ni muy waxee mais avant ñu koy tegal yi naka jekk moom noonu lay doxee day défier état Ousmane Sonko jotewul ak Macky Sall Ousmane Sonko état la joteel bi ci des moom benn nit la joteel muy Adji Sarr jiñ ko Macky Sall bi ci des Mame bay Niang la joteel jiñ ko état bi. nan la waxante dëgg gis nga nag. bu ñuy waxtaan hmm. aussi. nanu wax li fi nekk je n'ai rien contre Ousmane Sonko. man géwel laa bokkat Passemal man entrepreneur laa dama yore sama géwél bu am métier laa entrepreneur laa menuisier ébéniste laa dama yore sama société di liggéey nekk ci télévision ñu may fay salaire bu baax ma yor sama njaboot ba may am million Ousmane Sonko mënu ko am Macky Sall mënu ko am man dara feesul sama bët yaa ngi wax communication Ousmane Sonko ma ne liñ ko teg nag avant ñu koy teg liñ ko teg Ousmane Sonko lan la déparé da xool wañ nga ma a ca mbànjaxaan nga la mu ko fi mooy gis lu dul dox mu teg ci loxo lu tax yemul ci loolu ci yokk leneen lim ci yokk mooy lan mooy restez chez vous couvre-feu nga am loo yëg sa yaram muy metti demoo hôpital fooy dem sud boote loxo mun na laal lu mu bëggul laal rëcc laal ko bët mun na xool lu mu ko mu rëcc xool ko làmmeñ sax mun na tudd lu mu bëggul tudd mu rëcc tudd ko may tànk fu mu dem borom la neex maa wax lii néew ma moom la mais bu fa demul woon li xew du xew bu fa demee bi mu génnee lan la wax demuma fa Mamadou Massaly toog na barki dem faram-fàccee ni ñoom ñoo ko ni politiser ko jiñ ko Macky Sall ba Bassirou Diomaye Faye lu mu wax Ousmane Sonko xamul Adji Sarr Ousmane Sonko génn dem naa fa demati fa demati fa ñee tamit def ci seeni i pexe ku ne dugg ci coow li bëri ñaari at loolu tënkuñu ñaari at loolu tënkuñu mujjee ci mu demee ba ci voilà mi ngi noonu Modou euh, ñu ngi gërëm bu baax a baax ku ñuy wax Dieng DG nee na Chouaïbou sama mbokk taalibe wax nga dëgg de waaw bu dee njenne nga bokk ñoo bokk Cheikh Issa ñun bunt bi ñuy jaare pour dem ci baam ba mooy Cheikh Issa Dieng fa lañ jaare ci bunt boobu jaajëf Assane Sala de wala <laughs> lan ngay ree mbedd ma sol laay xalaat nii. <laughs> mbedd moo sol wala mi nga sol mu si war a sol si mbir mi. waa ja léegi sol saalaa gi noonu wax na. Mm. wax na yu bëree bëri moom sax ana réeraat na loo xam ne defe naa passé nañ ko moom la muy wax juste bi nee na ko loolu amul. te duggaat na ca bu yàgg di naan di nàng-nàng juge bi nee na ko viol amul li ngay wax amut hmm. waaye moom ma ngay nangi-nangi solo ca mbedd moomu wax na yu bari nag nee na Ousmane Sonko daal ñaaw nañ jort bu fi ñëwee làmb mën na fee jógee kenn du ko tuddee dara duggul ci dara amul hmm. géwat amul dara hmm. sooy bu uh, saala bi nga wax na dëgg waaw bismillah yow Dakar na door paa kañ ko fa gëj a gis laa ko gëj a gis fan Sénégal kañ laa ko gëj a gis ah. luy loolu daka am door pa aw si mbedd yi nit ñaa ngay sabar di tëgg di fecc ngay seetaan sa xol di sedd maam caaxaan yu bari yooyu yi mbedd yi ak làmb yi baare am def ay kii làmb yooyu yëpp kañ ko gëj a gis yàgg na mbir bi Sonko ñëwee ak léegi daanaka gisatoo fi yooyu yëpp ànd na fi ne nii foo toog ñëwagul toogul président toogul waaye fi ne nii mbir ma ne plateau yeeg maanaam ñi ko daan def talatuñ voilà plateau yeeg mbedd yeeg yëpp Sonko Sonko dégg naa la làmb jaa ngi nii nar a fay la wax ñu naan sonko sonko mbër yi génn war a wax naan damaa bëgg combat nekk fi naan sonko sonko <laughs> kon wax na dëgg te teraangaam làmb la. ah eh nee na ba muy am million Macky Sall amagul million. waaw ah, million mu ko amee. ah dégg mu wax ko nee na ba mu koy am ah, Sonko eh, Macky Sall kenn amu ci million. Ah, si si dem yaakaar noonu rek loolu moom si dem yaakaar la. mais en làmb ji ñoom ñii. di communicateur traditionnel yépp nag moom mi dafa osé wax dañ ko war a sant gërëm ko. Hmm. ndax am na ñoo xamante ni ñoo ko gën a rëy sax gis-gis si Ousmane Sonko bu mu ñëw ci réew mi te waxuñu ko. Hmm. amul kenn ku si Ousmane Sonko arrangé si ñoom ñii. Ah waaw ndax gis nañu ni yàpp dañoo jàpp ni ñoom li ñu nekk ay caaxaan la te dañoo jàpp ni Ousmane Sonko moom duxut si caaxaan yii ñu ne. waaw te caaxaan yi ñu nekk ñoom jàpp nañ ni lii ñu nekk ku leen si nar a jëlee bu mu ci dugg ba leen si jëlee kon am nga moroom kon kon bari naay morom man <laughs> damaa osé wax ne caaxaan laa sama ko forcé nit ñi rek waaye man kay ñu ma ëppi caaxaan bari na léegi nag Ousmane Sonko si boppam dañ war a tudd làmb par force ah mu koy bëgg ak mu koy bañ muy fab garaam bu bam bii di fi def amploo yu baax bu ñëwee si plateau bi roofal ko ko ndànk nii wax nga dëgg waaw mun a Ousmane Sonko noonu dugg si ñoom lañ tudd drapeau bi ñuy may mbir mbëri xaalis di génn xaalis bi di ko jox askan wi loolu la war a def waaye wër ko koy tuddee ay sabar ak yooyu yëpp waaw sabar yi dañ sa sabar tuddeetuñ ko kenn tànn biir amatul sumb gaynde amatul yooyu yëpp ah, caaxaan yi bëri amatul te caaxaan yooyu day dundal réew mi day neexal réew mi ndax bu amul xaalis di seetaan si caaxaan yi day baax mais fi ni nii caaxaan yi bokk gisatee il faut nga dugg TikTok te caaxaan yi da nga naan jàkkaarloog moom direct <laughs> léegi da ngay taxaw naan nit nii mu naan la yi parce que émission Thiamas ni day am yàgg na gisagu ma numéro bu doo ko gisati ah kon a manqué ci dëkk bi sabara manqué caaxaan yenn yi animateurs yi sax léegi seen i mbir doxatul maa ngi waaye léegi fi toogati di maye dédicace dina dig Sonko nii Sonko naa waxal si Sonko rek loo si wax baax na nag <laughs> gis nga saala bii gi mii macha allah gañ nga ko dégg te li mu wax nii démb dañ ko windeel bu baax a baax a baax loola neex waxal ci Sonko. <laughs> jërëjëf voilà alaaji mm-hmm. noo gisee saala Guigé ak taxawaayam bi mu am mel leen daal Sonko xaw na leen am lu mu leen xañ. Mm-hmm. nee Sonko su amoon géwal bu ñu mën a jaar ci moom. Mm-hmm. ñu jaar ci géwal boobu jotu ci Ousmane Sonko waaye Sonko xamaluñ ko kenn kuy toog di ko tàggalay ki maamam wala ku koy waxal lu baax. waaw xam nga Sénégal moom. ni ñu mm. ko tëggee. Mm. Euh, yàlla dogal na ku ci am na ñoo xamante ni famille boo dem dinañ wax ne ñii ñooy géwélu juddu ñii. Mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ne bi mooy dëgg. Mm-hmm. géwél nag bu ñu waxee géwél euh, dafa am ñenn ñoo xam ni fépp la am. Mm-hmm. da ngay dégg ñenn ñi léegi nekk ci ñàkk jom gu mat sëkk. boo waxee ñu ne la géer gu yàqu laa. <laughs> dafa am it géwél yu yàqu. ah waaw géwél ku diiñ la euh, nit la koo xam ne day yem ci géeram. di liggéey di xëy di wàcc yor ak njabootam waaye ki nga xamante ni ki dañuy wax ne kii kat géwélu diw la mhm. kooku dong mooy xam ak ngéwélam dëgg la waaye léegi dañoo bëgg a créer ay géwél yoo xam ne bii mhm. euh, maanaam géwélu ñëpp lañ bëgg a doon maanaam géwél universel nga mhm. xamante bii léegi ku ñu gis rek nga yor dara ñu doon sab géwél loolu nag ñàkk jom la waaw parce ñàkk jom baaxul xam nga boo wekkee sa sa sa dund ci ñaan ñu lay may da nga hmm. war a dem liggéey hmm. Hmm. parce que warta toog ba tey muy wax naan man damay liggéey am naa nàngam ba ma amee lii amul lii am million nee na amu ko soxla wut wax li ngay jëf ci pénc mi rek la nit ñi di xool xool ndax yow euh, ku diiñ nga wala ku diiñ du du wala du ko diiñ doo ku diiñ euh, fi ñu yëf yi dëgmal dafa tiital ñenn ñu bari ñoo xamante ni bii dañu taamu facilité di ci dund defe ni nag ñu am jom lañ léeg-léeg sax ñuy wax naan xale yi nañu góorgóorlu te ñoom ci li ñu ne <laughs> lañ xamut lu mu mm. ñoo xamante ni bi saa yoo xëyee yaa ngi wër ku am ngir mu am lu mu la jox ak koy tuddee lam làmb buñ ko wekkee ci ku ñuy tuddee drapeau kon sport boobu dañ ko war a éliminer mm-hmm. parce que warta nekk loolu ko mm-hmm. dafa war a am ay amateurs yi fi nekk ñoo xam ne dañu bëgg làmb di dem di seetaani làmb mm-hmm. ñu koy tëgg billets yi ñuy jaay mën di fay mbër yi mais ñoom ñi ñoo gën a nekk ci lu neex ci mbër yi. ah bon dañuy sol seen yére yu rafet ñëw toog di riita mbale ba ngoon jot. di tudd ay tur ñu leen may xaalis. diw fële ah sama géer gu baax nga def nii def ni fekk booy bii bëri ñu koy dóor ay kurpañ ñu ngi ko fay cent mille francs léeg-léeg sax pour mu jot ca problème la. Mhm. ba noppi ñu naan làmba ngi dox non làmb doxut. làmb bu doxoon. yëf yi du deme nii mu demee système bi ni mu demee nii cinq personnes rek di dund ci làmb mhm. ñu naan làmb ngi dox ñu leen te millions yi ngay dégg yëpp romb ñu dix personnes ci ñoom ñooy fayeeku millions yi loolu fan la doxee matu ko sax ñaata licencié la ñoom mës nga leen a dégg ñu kaas loolu déedéet donc ñoom lii ñu nekk naan mi ngi dox baaxut donc dafa dañoo war a soppiwaat yëfin bi defee ko neneen noo xam ne mbër yi dinañ ci gis seen bopp mhm. bu baax a baax mbër yaa ngi nii chaque jour ñu dagg leen Uh-huh. fan la xaalis bi dugg mooy li mbër yëpp di laaj te ku ko laaj ñu sanctionné la uh-huh. ah te ñoom ñii tey lijjanti nañ loolu ñoom la seeni mbir di dox ci mbir moo xamante ni bii dañ ko teg muy arnaque boo xam ne kenn xamut ban façon kii la ñu bëgg nag lii bu mu soppeeku uh-huh. yaa ngi dégg Ousmane Sonko amut géwél moo tax lii ak lii ak lii donc xam nga yooyu mooy waxi ku daanu ci sareet moom ci jëm boppam bu bokkoon ak xalaat Ousmane Sonko sax nit ñi ba Ousmane sonk ah waaw parce que xalaat moom la nit ñi bañ moom dafa war a ranger wu xam ni ñu ëpp ci askan wi léegi buggatuñu lii. Mhm. nii yëf yi di doxee lañ bëggut dañu bëgg ñu changer ngir sénégalais yi gis seen bopp ci réew mi. Mhm. pas man ma gis sama bopp ci réew mais sénégalais yi. Mhm. majorité des sénégalais gis seen bopp ci réew mi loolu mooy li nga xamante ni moom lañu war a liggéey. mais xam nga problème bi muy wax ni maanaam. toog ba ci yàgg rek yow. Euh, maanaam gis-gis yu romb sa jëmm. loolu moo bon léegi li mu wax ci wàllu violence bi ba ni téye leen seen doom man damaa téye samay doom. alaaj làmb lu ko ëpp violence ci àdduna amul ah, te mosuma dégg saala ñu dem stade stade ba toj ñu rey ay nit wala ñu xaañ ay nit saala ni téye leen seen i doom mosuma ko dégg ci àdduna loo xam nga xam te làmb am ci violence amul fenn ah, ah, xam nga xam nga li nga def nii c'est très important macha allah mhm. euh, bunt bi nga ubbi nii mhm. moo lay wan ne la mhm. fekk nit ñaa ngi faatu mais sama affaire a ngi baax amul problème moom moom moom foofu la dugalaat boppam làmb ay nit a ngi faatu waaw ay a ngi kii mais duñ ne nañ arrêté làmb yi. Ah, doo ko dégg de. maanaam day kaas pour làmb di am. Mhm. te làmb ji chaque jour xeex di fa am. ak violence bu saf saf di fa am. agression di fa am am na ñoo xamante ni bi bu làmb jeexee musiba la. Mhm. mais violence boobu gisu ko parce que affaire ma ngi baax. waaw waaw musul wax musul wax ne téye leen seen i doom. ci làmb ji du ko gis affaire ma ngi baax parce que su jógee làmb ji am lu mu kii yaa ngi dégg. Mhm. ba may am million. diw amu ko diw amu ko loolu amut solo yaa ngi dégg. Mhm. nit ñi euh, du million la ñuy rawantee. si nit ñi rawante wu xam nga fi ñuy nattee nit ñi moo bon. Mhm. maanaam diw am na alal lekk bon kii na quoi non non. alal mooy lan. li ñu war a nattee nit ñi. Mhm. mooy xool nit ñi. du ci ak du ci xaalis quoi c'est que concurrence boobu moo indi yi ngay doon wax sànq encore. Mhm. Euh, xale yi nga xam ne ñu ngi euh, dugg ci gaal yeeg yooyu parce que dafa am loo xamante ni bii tey moom la ñu commencé wane ci biir réew mi maanaam compétition ci wàllu am-am jéemuñu. ñoom ñii bu njëkk ba géwél li mu mm. daan xëcc nit ki ci jikko wax ko yaay kan xamal la sa bopp comprendre ngir nga diiñ wan la sax way jur ñaar say papa mooy kan nga jubóole sa kii mooy lan comprendre mm. yooyu moo nekkoon seen kii waaye léegi fu sama affaire baaxee rek foofu daal laay féete tey jii ëllëg si biir bu ñu ñëwoon Ousmane Sonko président muy raasal di nga ko dégg mu amee yeneen discours mm. dafa ñafe de yiñ ko teg yëpp <laughs> waaye wallaahi jàmbaar pire a ngi ni di nga dégg discours boo xam di nga ne xanaa du kii moo doon wax lii <laughs> yaa ngi dégg. liñ ko teg xool da ngay dégg beneen morom géeyoon ne ko ma ne li ma ne saala li liñ ko teg. Mm-hmm, mm-hmm. kuñ ko tegoon nga ne um. waaw kuñ ko tegoon nga ne um. ñii oh, dafa doon Seydina Seydina Ousmane deful naa deful na le xale yi topp ko rek Seydina mu sell mi. ñun mag ñi dañoo yeex a gi xippi. fa la ñuy mujj. ñun mag ñi dañoo yeex a xippi. ci tappale rek. nañ bàyyi tappale c'est que man jàpp naa ne mi ngi defaru parce que bu ñu demee ba ñuy jàq rek mooy réew maa ngi bëgg a baax ah. waaw waaw parce que ñenn ñi seen njàqare <laughs> euh, baax na ci réew ci ngay xamee baax da ngay xam ne réew maa ngi bëgg a baax parce que bu ñu jàqee parce li ñu teg baaxut son bu d'accord loo xamante ñoo xamante ne bi dañuy xëy suba ba ngoor soo seen i xalaat garaa mbubb mhm. ah, euh, euh, yoo xamante ni bi fi ñu ko wéer diw na may na diw de keroog la moo may fukki mètre yi jes neer diw de keroog la moo kii téyër sàngam defal ma lii kii defal diw maanaam fi ñu teg lépp mooy doo dégg ñu ne lii laa kii dem bii. d'accord léegi loolu nan lay développer réew. mu ngi noonu réew moo xamante ni fukki nit tey liggéey téeméeri nit di leen tagg. ñeneen ña doon sëmër kuñ taggut mu mel ni doo dara. loolu mooy am réew. quand même. Ah, Ousmane Sonko bés bu fi gars yi tuddee woon làmb nit ñi tëbb ñoom ñi ñu taxaw naan Ousmane Sonko délégation nit ñi dañ. ci moom mais dem man vidéo bi ma jox sax nee naa leen Ousmane Sonko problème yooyu dañ ko ñemewut. ah non non ci télé sax ku tudd ci télé waaw duñ ko nuyu maanaam bu ñu waxee ci moom rek safaan la ñuy wax. waaw ah, ñoom ñoom kañ ñu ngi noonu. am na mbër mu ko fi tuddoon fàttali naa ko démb Bécaye dañu ko tëjal ma micro waaw ah. keneen ka dem na Touba ñuy wax ci cérémonie ñu tudd ko fa mu ni lu tax nga ko fiy tudd waaw ah. keneen ka nee na daa war a tëj di rey ñun duñ fal kuy dàmpalu ñoom daal dañoo defe woon ni dañoo defe woon ku ñu tudd doo jóg ñu jékki-jékki gis ku nekk ca kaw mm-hmm. ñu koy xool naan lu ko fa yóbbu <laughs> loolu mooy seen problème ah <laughs> wax dëgg de